xale yaa ngi noonu ci digg géew bi combat bi dox ci diggante Rakin ak Raakale Rakin moo ñu féete gauche Raatale moo ñu féete droite Rakin door na léegi lu mu nar ak Raatale Rakin eh door na ko da kaaw na day daanu day daanu dafa jël coup raatale daa jël coup ko mu daanu waaw lamba gi noonu. tey noo waaj. pare rek ànd ak samay mbokk. mais tey da nga calme lan la. waaw googu gaaju lamb ji moo kan nga doon xool ah. koo doon xool léegi. waa ji laa doon xool. man waay. adversaire bi. adversaire bi amul tur. ah. adversaire bi amul tur. non. après lay wax tur bi quoi. Ah. Mhm. mais tey bés bi lu mu laaj. daal rek teg ak tey. Ah. ba yàlla may la ndam. lii nga yor lan la. lii rasa la. Ah, tey ma koo jox. dégg <laughs> naa la adversaire bi. père laa bëgg gaay mbër bëgg naa la doom yaay ci loole sant yàlla bu baax tey naka nga àndee réparé dégguma tey noo àndee réparé réparé waaw kon ni ma doon ànd ak moom rek tout tànk la bu yaru comprendre waaw te lamb jox na ko cëram jox na ko axam li mu war a def na ko dañ koy gunge li ci des moom ci biir géew gi moom la na ñëw rek wane fulaak ak fayda xam nga yàlla may ñu ndam parce que am nañ yaakaar trop ci làmb ji wax dëgg doolu bëgg bu baax. tey bésu lu mu laaj. waaw comme lu ñu ma sant rek ma def ko. maa lan la sant. waxaguñ ma dara. waxuñ ma ko loo bëgg tey. non man ma wax rek ma def man mënu ma dara. takk ngeen bu déwé sax mënu ma ko lu ñu ma wax rek ma def incha allah waaw. kon baax na ci Boston 2 Niagas 2 ñaare numéro moo ñu féete à Boston 2 waaye lii lan la Niagas 2 door léegi waa Boston ni taxawee nii jaaxal na ma de. Boston 2 Niagas 2 eh eh daan ko daan ko Niagas 2 daan na ko doon dóor mu xaar mu daanu Niagas 2 daan ko jëlal ma foofu jëlal ma ko. billahi barki maa duma ñoom wër naa ko roi des arènes la soxla. nan nga ko daane wax ko sénégalais ñu xam. man ku ma si jàpp mu jeex booy dóor mal dàq dóor sama yaay dana ma bul dóor sama yaay dana ma sant ma la nga dóor doomu aadama waaw. yaay bëggul ma dóor. yaay bëggul ma dóor kenn moo tax ku ma jàpp daan la. li ma ñaata 3 wala 2 3 combats 3 victoire man si gars yi laa soxla. man ma jox ponkal yi laa soxla. ku daanu ma jël la bu boo ma bëggee boo ma ñëwee. per jaajëf la maa ngi sant waa Colobane waa réew ma waa sama entraîneur per ba la boo ma fayam per ba di sant waa Colobane di sant Talla Diop sama mag yàlla ko yàlla may wér gu yaram dafa sant sama billahi wala taala di sant yaa awoloo sama yaay Cheikh Diouf Moustapha Diop Ngoti maa ngi ko sëriñ bu ak Ndik Seck doom day bëgg eh, ga ci waaye sant nañ bur yàlla bu baax nam naa la copain bilaay yaa ngi jàmm sant am nga tawféex tey bésu lu mu laaj waaw rek jox ko cër jox li mu moom géré ko yàlla may ñu ndam ñu dem ñibbi incha allah mais ñu ci bàyyi nee nañu buusin moo mën moo mën geer dégg nga lool waaw waaw lamb la rek xam nga làmb moom bu taxawee lu ne ngay dégg bari na ñu ma ñoo xamante ne dañ doon wax ñoo mën geer te gis nga fu ma leen jaar waaw dañuy ñaan rek yàlla mi am sutura suturaal a may ñu ndam incha allahu rabi. combat dina am xeex. non lu mu laaj rek. lu mu laaj rek incha allahu rabi. bàyyi nañ ñu bëre ci làmb ji. waaw kon loolu la ñuy def incha <laughs> kon ci kanam incha allah. abaa ko nuyu la. waaw fay naa leen. ah mel ngaa liw de. waaw dama xaw a sedd moom. <laughs> mais tey naka naka la lu bés bi la tey. waaw xanaa andi sax sama papa rek Cheikh Diaw. waaw. lamb ji daal amul yaa xam fi seen conseil la nekk di ñaan yàlla yàlla may ñu ci bàyyi nee nañu yaa xam te moo lay yàqal salaam. waaw mais amul problème lépp dañ ko teg ci yoon. xale lañ duñ xale waaye tamit am te yaa ko moomal sa bopp mais daal. nit ku ne am na ñoo xamante ne ni ñoo la yor mooy maanaam ñii man ñii laay déglu ma sant ma def ko ci fa ba yàlla. waaw baax na bonne si kanam. waaw. ak réparé na ngeen préparé. arbitre sifflé na Albarka Kairé réparé réparé moo ñëwoon ginnaaw Albarka la nu jàkkaar lool ñaari xale yaa noonu. réparé Albert Kakaire eh, ñoom ñaa ku nekk yaa ngi ne tekk réparé nga dox ci kaw Albert eh door na ko réparé Albert Kakaire réparé Albert Kakaire Albarka dafa mel ni tey dafa ñëw téye boppam xeexul réparé Albarka Kairé réparé Albarka Kairé eh Albarka jël door ko léegi réparé doon ko jël dooraat na ko xeex nañu daw na jël jàpp na réparé Albarka ñooy xeex dugg na génnaat Albarka Kairé protège Zaa ba wadd na moom dégg ngeen coach ba arbitre sifflé waat na réparé Albarka Kairé Albarka nanguta taxaw mu ngi ba gën a gàtt xeex na moom Réparé Albarka daw na jàppanteeg moom Réparé Albarka Réparé nga bëgg moom ci digg géew bi eh Albarka jël na coup Albarka ngay xeex ak Réparé dégg nga suba nee na toogal say tànk. réparé Alba Kakayré téere yaa ngay wadd réparé Alba ñoo ngay xeex eh waaw xale yaa ngay xeex réparé Alba Kakayré jàppante nañu jàppante bàyyante dóorante jàppante bàyyante dóorante oh xale yaa ngi bëre téere yaa ngay dagg téere yaa ngay naaw wala ma marle toogatul taxawatul far dafa metti réparé doon na woof ko caxabal ba lu mu def nii eh waaw caxabal ba ñorul albaka fa mu jàpp baax na roof ko caxabal ba xale yaa ngi bëre waaw réparé Albarka Kairé coach baa ngi naan wàccal mooy naan Albarka wàccal jàppante dóorante wala bii baa dañuy bëre Albarka Kairé roof ko caxa bal waaye Albarka daa daa xam loolu réparé fan Albarka fan jàpp ci yow sori na loxo bii mu bi bii réparé jàpp bés bu ko bàyyee jàpp na ca ngemb la réparé Alba Kakare rof na ko caxabal ba waaye caxabal ba ñorul réparé lu mu bëre nii réparé réparé Albarka Kairé eh waaw xale yaa ngi xeex réparé Albarka réparé Albarka Kairé daw na jël ko réparé Albarka xale seen combat bi métti na. Repaay wàcc na wala Abraka wàcc na jël ko Repaay jox na ko wet moo koy mbot moo génn nañu génn nañu génn nañu abi sifflé na abi na bu yàgg abi sifflé na

bakaan kaa noonu ci Ardo bi mooy naaj mbay guy gee ngoog mbay guy gee ngi noonu te dafa war a ak ki nga xamante ne nii mooy arbitre sifflé waat na Albarka Kairé réparé réparé Albarka Kairé eh jël nañ tànk réparé Albarka jël bi nga ko jëloon baax na fàq na ko mu rëpp trois réparé Albarka Kairé réparé Albarka réparé Albarka Kairé Réparé Albarka Kairé eh Réparé xale yaa ngi damiyee seen combat bi yàgg na xale yaa ngi xoolante ci biir bët eh Albarka dugal na léegi benn coup daan na jël ko jël daan na ko réparé jël na ko daan ko réparé pakete na ko mu daanu lu muy wax ni Albarka nee na ko daan naa la Albarka lu wax Albarka Kaïré dafa mel ni am na lu muy wax. ni wàccal wàccal ni wàccal maa ngi siyaar baax baax ci loo ne sant Serigne Sall comme ni ma ko bi nga lancé nag man su déggee day yàqu damay tiit fayakoguma dara ci làmb wóor na Serigne Fall su ma déggee day yàqu damay tiit quoi wóor na Serigne moo tax ma wane lii combat bu am importance sa carrière nan ko ko bëree tey. bilaa xaw ma dañ maa war a defal ma def. wóor na Serap dañ maa ne defal rek ma def. sa adversaire contesté na premier sip bi daf la daan. avant may àgg arbi na Serap kii nii man su ma bëree ak moom su ma war na daan su ma daawee war na maa daan. waaw su ma déggee ne làmb day yàqu damay tiit ndax fayagoogu ma dara ci làmb. bilaa fayagoogu ma dara ci làmb. fan nga jëm fan nga jëm. ah xanaa damay toog di déglu rek. waaw. man déggoo la su ma déggee ne lamb ji day yàqu damay tiit laa wax ndax fayakoogu ma dara ci lamb suñ ne lamb ji day yàqu damay tiit te barki Seydina Mouhamed seen bal maa feebar ba jël ñetti bitéel barki Serafal samay entraîneur ñoo ma ko conseillé ak sama coach papa papa maa ngi koy sant di ko gërëm wër a Serafal ak sama coach entraîneur ñoom Cheikh Thiam ñoom Boy Thiam Diegane xaya xaw ma sax ñii rek laay déglu wër a Serafal Diouf. dëgg dëgg la. waaw ñu ngi lay ziar gars yi. Eh, daa de. waaw daa grand bi neex na si rek teggil rek xam nga mu ngi daal wax dëgg yàlla. di ko ñaan yàlla may ko ndam bu set wax xale yi may ndam may muy bëgg xale boo xamante ni ndaanaan la lan ngeen ko yebee tey. waaw moom champion la yàgg naa awoo yàgg naa bëre champion la xam di ko ñaan yàlla may ko ndam parce que yàgg naa bëre ndax xam na boobu daal wax dëgg yàlla. aja kontaan naa. ñoo gën ko ci. mbër bëgg naa. waaw bëggee. ci loone maa ngi nii gaan. tey naka nga ñëw. après ci kanam ñu waxtaan. Ah. instant bi amoo lenn lu loo wax amoo lenn lu may wax instant bi. kon ci kanam. waa ci kanam. ay moo yor kumikaay Kewel be maa ngi dolli ci loo ne maa ngi rek lan nga nekk dégguma ma ne ci lan nga nekk ah maa ngi sama jàmm maa ngi ci li ma war nekk rek waaw mais keroog ñu gis nga bëre combat bu yàgg yàlla dogal nga jëlee ci defet boobaag léegi kenn gisagu la foo waaw maa ngi ci li ma war a rek nekk ci samay entraînement rek waaw toog ci sama ruq rek di xaar waaw ànd ak doomu ndey buur si nag di ko ñaanal yàlla may ko ndam. booba ak léegi gars yi wax nañ ñoo ngi lay contacter wala. non gars yi moom man moom xam nga ne doon naa mber moo xamante ma bëree ci guddi gi sax ñu waxaat ma mais lamb doo ko yàkkamti da ngay def ndànk-ndànk rek waaw aw yoon la quoi maa ngi ci sama li ma war nag toog di xaar rek. li nga bëgg lañ la joxagul wala boog fi a diis. xëy na dañuy wax duñu d'accord wala affaire yooyu wala ñu proposé la koo xam ne mooy loolu xam nga li ci lalu daa bëri. il est proposé bëggoo leen. non non ñi nu ma waxagul ñëpp moom boobu ma leen moom. ñan nga bëgg. après bu taxawee rek di ko xam bu soobee yàlla waaw. waaw ah, baax na merci waay. dalal ma fii. ah du bëgg. maa ngi bëgg de. lii de buy si moom. waaw lu ma lekk ci bopp. mais ci loolu. maa si yéeg fan yàlla bu baax. mais dafa mel na nga ñëw sañ see toog seetaan. waaw damaa ñëw seetaan si lamb. waaw. ndax nga gisee lamb. waaw lamb ji ni nga ko gisee mooy man moom dama ñëw pour ñaari mbër muy Omali Ibou Ndiaye. ñëwee laa kan Omali. Obali ak Buur Sine di leen ñaanal yàlla may leen ndam lu sedd guy te gën a gaaw ci ban Seydina Muhammad foo toll waaw gars yi wax léegi rek incha allah rek yaa ngi ci kaw waaw maa ngi ci <laughs> waaw ñu lay fay ci loone sant yàlla di julli ci sangub sang yi tey naka ngeen andee seen waaw Buur Sine da xam nga ne moom yàgg naa bëre tekki muy bëreet mber mu mag la daanaka li nu koy wax rek mooy mu teey te bu mu bokk ci combat bi lu yomb parce que mber mu mag yi moom saa leen ko yombalale sax mën nañu laa nax far am na combat yi moom da xam ne danga am foo jóge da ngaa war a reyant rek pour gagner ko am na combat yi fulaak fayda moo koy gagner waaw. Eh, fan yii bawol neex na de. ah fan yii bawol neex na de. waaw parce que dañuy liggéey rek. looloo am solo an nekk benn loolu dafa am ci mbër jërëjëf. kontaan naa ci yow. Thank you.

ma jum bëgg naa. Eh, doom day <laughs> maa lay siyaar. ci loolee boobu ci mbal masi wala léegi saa nga ci masi bi. non lépp ngi fi am na timbar masi am na suppu lañ set. suppu lañ set suppu lañ set. loolu mooy lan. suppu kenn du ko naan. du ko naan dootoo ko defati. mais ci loolee mais tey da ngaa sañ ah, waaw voilà yàgg naa ko dégg sañ moom yàgg naa ko dégg mais jaag moo jaar fii de. jaag waaw unité unité si jum kii jumaa ji rek. jaag daanaan la. non. barki Seydina Mohamed am na yeneen yu des sax. waaw mais loolu mooy. boo xam naa da nga koy demee Saal. ah. bii moom xanaa da nga koy demee rek. non kii fi mu toll nii damaa boros su ma sangoo njàpp yi toj. maa la wax loolu. mais fan nga toll. sant yàlla baax ñu ngi ci jàmm ñu ngi ci jàmm bu baax a baax a baax di préparé wu. di ànd ak waa parcelle mbooloo. tey dañu indi suñu poulain muy Obali di ko ñaanal yàlla na suñu borom may ndam. Gandia Fama am na combat Kondinga am na combat Lamp am na combat Thiat sama rak Baye am na combat ñoo ñëpp yàlla na leen yàlla suñu borom may ndam di féliciter euh, Sow Gueye suñu benn booy mooy booy bi doon bëri fii borom jéem xam nga ne est-ce que xam sama mag la. Sow Gueye. yàlla xam na ne sama mag. gis nga papaam boole moo ko indi suñu écurie booy bu am jom booy bu mën a bëre ñu koy encouragé di ko wax na ko mu gën a góorgóorlu ndax mbëre ngi ci moom di ko ko ñaanal yàlla. <laughs> dinañ ci jàpp bu baax a baax. ñu ngi ci jàpp man moom pare naa fi mu toll nii nan ma jox benn booy rek ma def ko échauffement échauffement laa la. ban booy nga soxla échauffé ku ñëw baax. kañ la ñuy toog man a yow. kañ nga ko bëgg. suba wala lundi. waaw ah, nañ ko def lundi suba mënul nekk suba weekend la dañuy noppalu. ñu bàyyi ba nañ bàyyi ba lënd ndax xam naa ne maa yow moom sunu émission dafa war a neex dina mel ni palaatu yaasu bu tuuru may nuyu sama mag sama xarit sama doomu ndey Malick lay mu ngi Espagne moog jabaram Oumy Coulibaly maa leen di ziar di leen bëgg. sa rakk ji doo ko woo mu ñu bis. kan ci. Garga Mbossé. yaa ngi tax ni ñi di ma kii mboose ñibbi sil da ngaa bokk ci làmb ñëwal jël sa place bul may indil wax déggal li ma la nag du ma la ko waxaatee. Séeri Nene maa leen di nuyu au passage di nuyu Boy Ndiaye ak Yanda maa leen di nuyu ñoom bu baax a baax a baax a baax. kontaan yaaw jaal yaaw jaal bu ma fontoo yaaw bu ma fontoo ñibbi del woote yaaw léegi du woote de te doo ko du la jël. du àdduna. Assane maa lay jaare ci loone sant yàlla bu baax. du ma la laaj naka wàccaay sax ndax gëm naa ne pare ngeen. waaw alhamdulilah pare nañ di ñuy bàyyi lépp ci loxo loxoy suñ borom mu eggale mais li ñu waroon def lépp def nañ ko di xaar yàlla. galaa bu toll noonu nga koy waaj suba lan lañ mën a xaar suba ci ambiance ci bëre. waaw ku ñu xam-xam ne sa billet moom day jar waxuma la combat yi mais ambiance moom day am. bu baax a baax a baax lépp loo xalaat pour luy neexal ambiance rek pare nañ ko ba teg ko beneen bi lébu yi comment euh, ay ndaw rab yi ñu bëri andi nañ ko teg bu yoof ak bu tëngeej yëpp a ngi pare ak suñuy bagage suba du yomb de ci luy baax la arène nationale suba. amoo ko bés. na déet combat booy yi ñu ngi pare macha allah lépp lu ñu waroon def def nañ ko jënd nañ billet yi. commandé nañ billets yi teg blouson yi dem na léegi laa jóge foofu pour def dernier réglage sécurité bi mat na ñëpp ngi pare borom drapeau yi ñu ngi pare. kon daal suba la suba dañuy ñaan yàlla rek dugg si ak jàmm mu jeex si jàmm ci barke Serigne Saliou. kon rendez-vous suba. suba la arène nationale ku rate rate lu rëy ku yóbbu ku ko bàyyi ku ko rate ba yóbbu nga bañ a dee dem li des saison bi. <laughs> Bébé Gouy Gui ngi noonu ci diggi géew bi ngi ci diggi géew bi Agogo ngemboo na ngemb lu wala bu beige bu verte Bébé Gouy Gui ngemboo na ngemb bu beige bu xàll dugoo ca sorte biir moom Bébé Gouy Gui am na ay moso yu xonq yu mu yor sànni na benn bi Agogo beneen bi takk na ko ca ndigg la Bébé Gouy Gui Agogo Bébé Gouy Gui Agogo arbitre baa ngi wax ak ñoom li làmb nangu ak li làmb bañ Bébé Gouy Gui aneer na ba ci côté saako ya muy jat Bébé Gouy Gui a jat jàpp Bébé Gouy Gui a tuflit na ci kanam gi dellu siwaat arbitre sifflé na Bébé Gouy Gui Agogo Agogo ngi dox ci kaw Bébé Gouy Gui Agogo Bébé Gouy Gui Agogo Bébé Gouy Gui Agogo Bébé Gouy Gui Agogo ngi dox ci kaw Bébé Gouy Gui agogo agogo agogo bébé guy gi agogo xeex ak moom agogo bébé guy gi agogo agogo toogal say tànk agogo toogal say tànk guy gi agogo bébé guy gi agogo bébé guy gi agogo bébé guy gi agogo gi bébé guy gi ngi koy sëkkatal daa bëgg dem bébé guy gi agogo jël na ko Bébé Gouy Gui Agogo añ na ko Bébé Gouy Gui Bébé Gouy Gui añ na ko braqué mu bañ Bébé Gouy Gui jàpp na Bébé Gouy Gui jàpp na ci ngemb li Agogo jàpp na Agogo jàpp na Bébé Gouy Gui ngay dóor Bébé Gouy Bébé Gouy Gui Agogo ku ci nekk am nga loxo ci ngemb waaw Agogo nam ko ndenge ñee arrangé wul Bébé Bébé Gouy Gui yaa dóor ci faari téere yaa naaw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 Agogo Bébé Gouy Gui Bébé Gouy na fa jàpp baax na da koy bëgg a zongale na ko jéem na ko léegi waaye Agogo fa mu jàpp daa baax Agogo ca digg gañoo ko la Agogo Bébé Gouy Gui Agogo Bébé Gouy Gui ago Bébé Gouy Gui ngay dóor Bébé Gouy Gui ngay dóor na léegi moom Bébé Gouy Gui zongale ko zongale ko Agogo bañ rof na ko caxabal ba rof na ko caxabal oh Bébé Gouy Gui daan na Agogo Bébé Gouy Gui daan na Agogo Bébé Gouy Gui daan na Agogo Bébé Gouy Gui daan waaw na ko mais maa ngi lay ziar bu baax. ci loone sant yàlla bu baax. mais daal da nga ñëw nekk amateur c'est mais comme toujours xam nga ñun avant tout bu dul dara ay amateur la ñu. donc tey waa diaspora bi daal di organiser rent DKR xam nga bu ñu nee rent DKR ne diaspora wax dëgg yàlla aussi di rafetlu nag liggéey bu rafet bi ñuy def parce que tey ñi ngi jàpp ci combat bi parce que xam nañ ni feebaru Sénégal tey mooy jàppale xale yi. te ñoom ñi ngi bay seen wàll ci ci tool bi pour jàppale xale yi organiser ay journée yu neex nii pour bégal xale yi ak ñun amateurs yi xam nga loolu xewal la. naka nga gisee làmb. non wax dëgg yàlla làmb ça va très bien pour wax la ni réew mi ñi fi nekk di liggéey bëri nañu dañuy soxla jàppale nag parce que boo xoolee tey ñi tudd mooy promoteurs yi nga xamante ni tey ràññee nañ leen ci làmb ji duñu ay promoteurs yu mag a mag mais lépp lu ñuy def ci làmb ñoom la amateur yi bëgg commencé ci jamaïcain mu ne ko l'enfant terrible de la sénégal Sénégambie wax dëgg yàlla boo gisee nekk xale bi gën ndaw ci promoteur yi te ñu gis ko journée yi muy organiser ci làmb bi ne déet ay magam Assane Ndiaye Baol production yàgg nag ci làmb nekk nag nit koo xamante ni tey buñ ko doon gëstu lañu mën a wax ci moom bari na ci defar ak ci tëgg journée yu neex dara soxalu ko rek lu dul luy bëggal amateur yi moom newul boppam amul solo mais dafa ne moom d'abord amateur la man ak amateur yi man ak yéen benn lañ moo tax lépp lu muy def rek da ciy sóoraale amateur yi parce que dañoo xam làmb Fallou Ndiaye moom it nga xam ni kenn demul mu des liggéey itam moo ko ñor moo lay wan ni mbir mi bawol la xam nga bawol bawol ñëpp xam nañ leen ci liggéey bañ nañ ko ba amateur u bawol bawol sax fu ñu nekk day riche parce que dañuy dem liggéey am nañu lu ñu jëndee billet ñëw toog stade waxtaan bu neex bu ñu leen daanee ñu ñibbi bu ñu daanee tamit xombal ko mu neex mais làmb loolu la ça veut que sport la boo xam ne tey dafa war a boole xool yi rafet et puis ñu yéenante jàmm mbir yi ku ci nekk xaj nga ci de mais nañu jàppalante di yéenante jàmm la solidarité su ko defee avancement bi dina gën a yomb liggéey bi ñuy def tam dina gën a yomb te xale yi tam dinañ ci gis seen bopp parce que làmb nekk na loo xam ni kenn mënatu koo génne Sénégal mais il faut que kilifa yi réew mi jàpp ci parce que kilifa réew mi boo xoolee li ñuy def ci football bi le quart bu ñu ko defee ci làmb rek mu dem tey promoteurs yi mérité nañu chaque année promoteur bu nekk ñu jox la subvention wu tant de millions pour sa saison loolu promoteurs yi mérité nañ ko parce que du CNG du dara c'est des privés privés yoo xam ne tey kenn xamul dañuy dem bu ñu bool bool bu ñu dem lu ñu jaay ñëw tëggee ko làmb mais ñooñu mérité nañ ñu subventionné leen keneen ak keneen noonu. tey réew noonu lay doxee le sport il faut nag ñu defaa taxaw seetlu jiitu réew mi comme nag yàlla def na moom lu ne bëgg na ci dugal loxoom mais làmb wax dëgg yàlla defagu ci loxoom ñu gis. arène nationale nag bu amee c'est le dû bañ koy diggee yàgg na mais boo ko fi defee dafay am lu muy lu muy àndal accompagner les promoteurs les promoteurs ñooy ñi nga xam ne ñooy accompagner la jeunesse keneen ku ko wax loolu da koy ndax. dañuy naan président président wàccal ñëw dugg ci arène bi wàccal waxtaan ak promoteurs yi su ko defee ngeen jàppale leen ñu am subvention lamb li muy rëy rëy bu amul promoteur lamb du am no defal lu la neex tey bu promoteurs yi toogoon seen kër lamb dootu fi amati CNG organisé wuñu fi dara loo xam ne tey mën na ca dëkk à part drapeau chef de l'état wala CEDEAO te dañ leen di subventionné mais lan mooy ndey lu tax nag tey promoteurs yi wax dëgg yàlla année bi jot ñu subventionné leen loolu je pense que ni mérite la rôle la boo xamante ni tey njiitu réew mi war na ko boole ci programme am yeneen sport yëpp dañ leen di subventionné lu tax promoteurs yi nag ñi nga xam ne ñoo tax ñu naan làmb tey jii ñu jàppale leen c'est le problème boo xam ne tey moom la ñuy dañ koy dund di ko dund mais il faut njiitu réew mi jàpp ci wax dëgg yàlla. loolu dama la ñëw toog ñu yaatal ci waxtaan ci bu baax a baax. mais dina ci baax xamul benn problème xam nga ñun tam budul dara ay sportif la ñu sport la ñuy dund d'abord avant tout sport la ñuy dund dafa nekk lu particulier loo xam ni uti na sport yëpp parce que làmb li muy def ci réew mi moom rek a ko mën du football du dara tey grand combat bu amoon fii football am fole gars duñu dem ci football ba te tey football xoolal championnat bu amee kenn dematul seetaan làmb rek moo fi dese ay amateur yoo xam ni mu neex mu naqar dañuy dem lu bien cher cher cher dañuy dem seetaan yi te nag loolu boo amee loolu ci réew ça veut dire que ni nag dafay temporiser parce que boo toogee ba week bi liggéey wala nga toog sax yor dajale semaine bi nga dajale lu yóbbu stade comme xale yi ni ñu koy defee dañuy ñëw toog ci tribune yi dañuy kontaan parce que li ñuy dund ci biir làmb ambiance ni ñu koy waxeeti sax folklore culture mais lépp ci làmb la mais tey ñooñu boo leen jàppalewul ça veut dire que ni na nga seetaan sa réew te njiitu réew foog mu defaa taxaw seetlu. kontaan naa ci yow. ñoo ñoo far yéen. ça bouge pas. maa ngi lay fay. Euh, ñu gis na yaa jiite euh, organisation bi ju bi jugee CNG naka nga gise làmb ji. bon vraiment lamb mi ngi dox mi ngi am jéego commencement bi xawoon nañ am ay ay kii rek mais yooyu yëpp ñu ngi koy régler je crois que làmb ji ni muy déroulé xam ne làmb ji mi ngi dox le problème mooy mbër yi seen bopp ñoom ñoo war a xam ne làmb ji ñoom ñoo ko moom ñoom ñoo ko war a defaral ñoo ko war a taaral. donc ñun da leen di jàppale ñun ñoo yore gestion lamb ji di si def lu nu mun maire mi nag si boppam mi nga xam ne moom mi nga moo si dund moo si liggéey moo ko gën a war a taaral donc suñ ko defee noonu rek coow du am dara du am. mais dañoo gis euh, combat Balla Gaye Bombardier ñu gis Sitor am na erreur yoo xamante ne defoon na ko foofu nii ci bàyyi ñoo ngi doon kaas Sitor dafa juum ndax sit am na mu andiwaat leen ba bi euh, Bombardier dafa recours ñu jox ko victoire en tant que président organisateur naka nga gisee loolu. xam nga ñun kuréel lañ dañuy doxal kuréel la ñuy doxee su amee problème wala mu am erreur d'arbitrage mun loo jékki-jékki nga génne yoon arbitre bi dañ koy woo suñ ko wooyee mu ñëw wax li mu mu ñëw def rapport am jox ñu def na lii lii ak lii moo tax mu siffle lii ak lii moo tax mu joxe sans verdict donc ñun suñ ko càmbaree xool ko ak suñuy rapport parce que ñun dañu yore loo xam ne comme yéen ni ngeen yore nii am nañ suñu appareil koo xam ne moo moo ñuy defal moo ñuy defal moo ñuy filmel diñu indi lay image donc suñuy indi lay image yi ñu visionné ko xool ko après combat bi dana xam ne lii am na war a amul loolu mooy loolu mooy affaire bi ñu ci bàyyi dañ naan Euh, arbitre yi sanction du dal seen kaw ndax bu mbër bi tardé ñu sanctionné ko bu mbër bi euh, euh, temps passé ñu sanctionné ko lu tax arbitre yi nu ñu am sanction. mais mais ku si ne da nga am sanction amul kenn koo xam ne yaa ngi dox CNG du la sanctionné arbitre bi fi mu ko teg ba sifflé man maa ngi taxaw bi muy bi balla di di chuté noonu maa ngi taxaw beneen arbitre bi nekk si gannaaw mi ngi taxaw mais sifflé na bu yàgg avant avant kii te euh, ñetti arbitre yëpp taxaw nañ gis nañ gis nañ affaire bi xam na ne sifflé na donc lu mu mun l'erreur est humaine erreur la mooy affaire gis nañ ko fii si diggante euh, Boy Niang ak Lac de Guiers noonu la demee mais après vision dañuy joxe victoire bi ñun yooyu amuñ si problème. kontaan naa yow ñu dem xool combat bi te dellu si. gën a kontaan si yow. doomu Grand Yoff bi laa fi nekkal. doomu son set bi ci loo ne Malaysia. waaw ñu ngi lay fay di nuyu ñëpp téléspectateurs yëpp di kontaan ci dugg si bi ñu dugg si tey ci làmb di di ñaan dugg ci ci bisimilahi rahmaani rahim génn ci ci alhamdulilahi rabil alamin di kontaan bu baax a baax di féliciter suñu rax Assane di ko wax ni c'est ça la lutte na góorgóorlu rek ñëwaat yàlla baax na yàlla def na ko defal ndam di nuyu waa l'ensemble zone 7 waa Grand Vieux di leen wax ni suñu combat le 27 février la ñu nag mbay guy gi di di leen ne ñaax nañ ñu ñaanal nañ ñu jàppale nañ ñu doole dooleel ñu ñëw defal indil Grand Yoff ndam li parce loolu mooy suñu seen loolu mooy suñu xel si gi jëm ci kaw ci kanam incha allah. macha allah mu mel ne fii nga ñëw miin nga ko. trop bi nga fi mujj sa diggante ak Mame Balla top 5 la woon. Euh. ca combat bu rëy ba nga war fee dellusiwaat le 27 février nan nga nar a waajal sa diggante ak mbay guy gi. waaw ñu ngi koy waajal comme ni ñu daan waajalee combat yëpp rek pare ci sur les plans parce que dafa nekk combat boo xamante ni intéressé na ma trop trop trop trop trop. parce que dañu dem toogoon génnoon dem dem bitim réew. dem toog fa lu dem toog fa benn diir bu gàtt dellu si kon donc jot nañu wane nii ñun li li nga xamante ni nit ñi foog nañ ko ci ñun ba tey mu ngi ci ñun ñu ngi bëre bi ñi ngi xeex bi ñi ngi capacité bi ñu ngi force bi aussi donc amul lenn loo xam ne dañ koy tiit ci combat boobu incha allah bu neexee yàlla di wax fan si Zarko yëpp na seen xel dal comme nu man nu sama xel dalee ñi dañuy yox jëli ko amul xaar ma yàlla kenn duñ yox jëli ko ngay bëre xale boo xamante bi ni lu nekk ci kanamam da ko fiy jële ba arbitre sifflé du la may jàmm début à la fin non du bii nag bi doomu xaal pulaar beeg lébu bi du boobu bi moo bi moo koy jël non dafa jaawale mbay xàmmeewul jaaj ak joor déggoo ma de kii yow bi fi mu dal baaxul après lay comprendre nag le vingt euh, le vingt le vingt sept le 27 lay soog a comprendre. nee na combat bi bakkanam la ci teg. waaw mais mooy combat bi ku ko nar a xañ mu jëlee kon den ma xam ni kon moom dina dem ndax ko combat bi du ko yóbbu fen du puus du paas du xeex du bëre dinañ dina xam ni ki fi mu dal baaxul du woon foofu. waaw dafa signé te liirul. dafa signé euh, te liirul. Euh, waaw da ko fàtte daf ko fàtte daf ko fàtte liir bu ko liiroon kon du signé. mën nañoo xaar Sarko bi bëre woon ak 50 Cent Sarko bi bëre woon ak Thiat Sarko bi bëre woon ak Mansour Diop numéro 2 mu ñëw 27. Sarko bu raw boobu nag moo ñëw. parce que Zarko boobu da doon jàng mature gu loon mu ngi soog a mature macha allah di ñaan yàlla yàlla nañ yàlla ba jour ji le 27 di di wax euh, surtout sponsor bi ñu koy yóbbante Aziz. Zador ñu ngi lay yóbbante nag li ngay def kambale yëpp ñu ngi koy dégg mais ñu waa Grand ñu ngi lay xaar ci combat bi bëgg nañ nga ñëw jàpp ci bu baax a baax comme que nee nañ Aziz ndey ji seex la njaaxaanaay lay tëggee lay tëddee donc ñun waa Grand Yoff aussi ñu ngi lay xaar. ci combat bi nga ñëw jàpp ci bu baax a baax malgré beneen camp li nga fay def yëpp ñu ngi koy yëg ñu ngi lay xaar nag nga tëddee njaaxaanaay ci combat bi jàpp ci bu baax a baax a baax a baax mais xam nga combat bi li muy représenté sa carrière parce que da nga jël combat bi booy yëpp na waroon a jël combat bi parce que booy bi coow la te mën naa na doole comme doole bi nga am moom ak Sa Thiès doole ah laaj moom ak guy gi doole. question pour amateur moom ak. Euh, Mansour Diop moom euh, Mansour Diop non moom ak Siteu kopp doole. man du doole moo may daan. lan moo du ma ko wax. du doole moo may daan. bu doon doole bàyyi naa bëri bu yàgg man ci keppaaru ñoom ñoom euh, super jamono ñoom Baye Pël ñoom Malick Mbaye ñoom euh, Métérise ñoom Dolfu foofu laa jànge bëre nekk nekk nekk mi euh, mini luur ñoom ñu nekk luur du doole may daan. combat yow <laughs> yow déggoo ma kii bu bi la kenn duñu ko teree dugg. bu taxawee ci porte bi. mooy yow fu mu taxaw mu ko fay jëlee. barke Serigne Bamba doomu Grand bi ngay waxal de. kan moo dàq xeex kii du xeex du bëree. maa ko dàq xeex ëpp ko sañ-sañ gën ko ñemelu teppeeku du def dara. ku ëpp doole ku dàq day ñëw daanu ñibbi. incha allah bu neexee yàlla lu mel ni mi laa lay day ñëw daanu ñibis moom xam na loolu sax. tafaati koy andi tafaati takk waaw yow sëñ bi yow doo ma dimbali. kooku dina dina mel ni bañ ne yaa mu bañ. yow da fond. yëpp day ñëw adressé lamb ji. est que est bu ñëwee. arbitre bi dama koy agressé. fu mu taxaw dama ko fekk. te naa ko dóor ba mu dawal boppam lu leer laa lay wax. kii baxan bee rëy jarul boo koy sa xool gëmmal rek sànni sa loxo. foo sànni da koy dal day dal ci baxan par force. jërëjëf billaay yow. yaa jëfati. te mbay guy gi borom maa lay siyaar. maa lay fay. ci loo ne. ñuy wax ginnaaw ban sant yàlla rek julli si yonent bi gërëm sunu ñaari waajur. di wax jërëjëf Serigne tubaa jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall Lam ñuy gërëm sunu Serigne sëñ Tafa Diouf borom Boox ak Njaañ di nuyu ñëpp di nuyu waa Bawol fa ma dëkk ak waa Medina di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sama coach bi ma àndat Welaas Mor lan 2000 Mor Boy Niang sama xarit Cheikh Diaw sama xarit waaw ak Fallou sunu grand sunu xarit. nan nga ñëwee tey Boy Ndiago baa ngi ne toog. waaw nit ñëwee ñëw rek pour remplir suñu contrat di ñaan yàlla le 27 jot yàlla may ñu ndam incha allah. Ndiago mi foo taxaw mu jëlee la loolu yëpp amul problème nañ bàyyi ba bés ba rek. man moom combat bi du lu waaw coow ji bi damay ñëw jëf gaa yi gis. nga baal ma sa bakkan dafa rëy fu daal. moom sàcc la daa sàcc Europe ñu tëj ko fa génne ko indi ko Sénégal. Ah, daa sàcc ñu indi ko. ñëwut ci coobareem ma yombalal la ko point. man mbër muy dem ay boîte mbay jeg yi di naan sàngara di def lu ne mënoo maat daan. kii njaago la waa njaago na jël lépp. ñu am na ay supporters yi njaago mais li ma la moom laa waxal waxuma ak keneen. dégg nga mbër muy taxawaalu di ànd ak jigéen di def lu ne mënoo maa daan damay liggéey. nee na contrat te am benn code boo xam ne waa coow jibut naa garaawut waa coow jibut lépp na arbitre wàcc loxoom rek jël suñu diggante incha allah loolu amul problème. fii lay bëree séeréer à domicile. fii lay bëree séeréer fii lay na sóoraale lool rek fii moom jarut mu indi kenn na toog dinaa duy fii. duy fii duy fii duy fii muy toog na noppal boppam. nee na Aziz Ndiaye da koy jàppale. sama papa sama xarit moom laa waroon a njëkk a nuyu sax maa ngi koy ziar di ko ñaanal jàmm combat bi moo ma wone ma taxaw na xam nga li ma la xaw ma luñ ma fay moo ma wone ma combat bi taxaw na ma ne ko ah mu ne waaw mane ko baax na kooku sama lépp la Aziz moom day jàppale Aziz ñëpp lay jàppale Aziz yow mi sax boo demoon mu jàppale la mais daa am ñu ne ci xolam muy man mii man mbay guy gi waaw man la bëgg lool loolu la yàlla dogal. maa ngi koy ñaanal jàmm sama papa sama xarit yàlla na ko yàlla defal jàmm ak sama papa Dieye Sène ak sama papa Barajon ak sama papa Daouda Sarr. mais Mbaye est xam nga combat bi li muy représenté sa parce que Zarko dafa daan caat daan Mame Balla mi nga daan fii daan kii Mansour Diop numéro 2 daan ay ndaanaan bëreeg Sa Thiès guy gi. yëpp dañ koo daan yooyu yëpp dañ koo daan. waaw six victoire am ci layam amul <laughs> amul victoire. man kii aw ma ma ak moom wax ju bëri waaye moo daan te le ma rek affaire la kii dama koy jàpp du ma ko daan ko ci kattanu yàlla. lépp lu mu def dama koy daan bu mu sonal sax boppam bu mu yàq xaalisam ci dara dama koy jàpp daan ko point. nee na waa Garaye wax nañ ko kele bi nee nañ amoo amoo kele yu bëri. waaw amul problème ñun ñu ngi sant yàlla yàllaa ngi suturaal ñu ngi bëri di daan ñu ngi lekk làmb loo xam ne sunuy mag a ngi fi jiituñu ci lekkuñu ko kon ñu ngi sant yàlla loolu yëpp garaawul. ku dàq a bëre ku gën a ñime yàlla na nga daan amul problème. ayca wol waa waa Bawol ak waa Boox. waaw maa ngi woo waa Bawol ñëpp reefan sama dëkk fa ma dëkk nag reefan boox maa ngi woo ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di woo sama papa Cissé Thiam borom Kaolack sama papa sama xarit la maa ngi woo Mor Talla borom Sandaga sama waay sama xarit dal may jàppale Cheikh Thiaw sama doomu ndey sama xarit maa ngi koy bége bu baax Ndiaye Bamba centenaire waa centenaire ñi maa ngi bége ñëpp. sama gars yi ñoom Malick mécanicien gars yëpp ñoom sama gars yi mandat ñoom Mor lan 2000 village sama kotsu ak Elimane Sougay ak sama papa Bara ak sama papa Daouda Sarr maa ngi leen di nuyu nag mbokk yi arbitre bi sifflé na Hôtel Dior Obali Hôtel Dior Ibou Ndiaye Obali Ibou Ndiaye moo ñu féete à gauche Hôtel Dior moo ñu féete à droite Hôtel fanaan wala Ibou Ndiaye day tas hôtel ba Hôtel Dior Ibou Ndiaye Hôtel Dior Ibou Ndiaye Hôtel Dior cokkaas na léegi Hôtel Dior Hôtel Dior Ibou Ndiaye Hôtel Dior ñu ngay lewaatoo ñoom ñaar Hôtel Dior door na léegi waaye dalul

Hôtel Dior Ibou Ndiaye Hôtel Dior door na Hôtel Dior Obali bon mu chance combat bi benn congu lay ne Ibou Ndiaye da ko bëgg a jàpp xeex nañ daw na jàpp ko Ibou Ndiaye jàpp na Obali xocc na ko da koy da koy daan waaw doole doole doole da ko jàpp song ko plaqué ko mu jaaxaan doole doxul jàmm Ibou Ndiaye ngoog mo ngay njuug Ibou Ndiaye ngay njuug waaw Ibou Ndiaye noonu vite fait bien fait baax sant suma ñaari waajur waaw. gis nga bëre nga bëre noonu si yoon maa ngi sant bu baax a baax a baax. monsieur le maire Go Faye maa koy sant waaw borom mouvement réaction. borom Parcelles Assainies waaw dama bëree man xale laa sant ñu ma xeex bu ma ko jàppee rek lamb jeex waaw maa ngi sant yàlla bu baax. adversaire moo tax moo tax ma jëlee tool joor te xam nga ñu ay produit bu lamb lañ buñ jugee ay mbaru dëkk lañ buñ jugee waa Diofior jug sama mbokk séeréer yëpp maa ngi leen sant di leen gërëm. bii mooy sama sixième combat cinq victoire benn défaite. amaat naa combat le 26. le 27 diggante Mbaye Gouye Gui man maay bëre spécial bi man ak ngeer bu ngeer bu sax mi waaw ngeer lu mënti xew lu mënti xew incha allah rabi maa ngi waaj boobu tamit jëw na avance jëw na avance waa dama ko jàpp rek yéeg ko naax su ma ko jàppee rek lamb bu jeex sant yàlla bu baax bi waay walaay maa ngi sant suma sumay ñaar waaju sant waa Diofior di sant monsieur le maire Youssou Diom jàpp na si combat bi di sant monsieur le maire Go Faye maa ngi koy sant sama waa koñ bu baax waaw yaan yaan baas maa ngi koy sant bu baax yaan baas maa ngi koy sant maa ngi sant waa Diofior baax di sant képp ku ma jàppale si combat bi koy ñaanal mu jël mairie parcelle maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di gaay sama waa koñ sama waa dëkk Moussa Diouf maa ngi sant sama waa équipe ñëpp di gaay kontaan naa trop jërëjëf. ak mbokk yi ñu ngi leen di nuyu yaakaar naa ne ñaari xale yi taxaw nekk na ñaari xale yoo xamante bi ni miin ngeen leen torop ku ne mbay guy gi xam ne ma nga waree ca école de ba da jonn nekk ndaanaan nekk xale boo xamante bi nii am na lu mu def ci biir làmb waaye nag bu nee Zarko ca Grand Yoff mbooloo yaakaar naa ne jàng ku mokkal ber sa daara waaye kenn du ñi nga xamante bi ni ñooy waa REND DKR combat bi promoteur yi ko bëggoon bari na waaye yàlla dogal na nag comme ni may wax chaque jour rek kenn ku nekk ak sa wërsëg kenn ku nekk luy sa wërsëg rek moom ngay jël waaye bu ne mbay guy gi du ngeen fàtte digganteem ak John waaye du ngeen fàtte digganteem ak xale bi nga xam mooy Iba mécanicien digganteem ak Alioune Seye Junior ñu wàcc rek gàttal ci digganteem ak Mame Balla top 5. waaye kii di Sarko digganteem ak Mame Balla top 5 fii la woon bi mu fiy mujj victoire la fi jële digganteem ak Bathie Seras digganteem ak Fitou Sène waaye ay digganteem ak caat bu booy bambara léegi nag yaakaar naa ne mbay moo ma gën a jege dama koy jox mu duyoog mbokk yi. ñu daal di jub ci ki nga xamante ni mooy Zarko Mbaye maa ngi lay ziare. waaw maa ngi lay fay Modou Anta maa ngi wax asalaamaaleykum maa ngi nuyu waa stade bi ñëpp ñu fi ne. di wax ginnaaw ban sant yàlla julli si yonent bi ñuy gërëm suñu ñaari waajur di nuyu sunu waa dëkk waa Réfane su suma nag fa ma dëkk muy Réfane boox maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu waa Medina di wax jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf maam Cheikh Ibrahima Fall maa ngi nuyu ñëpp di nuyu sama yi ma àndal Mor Baye Fall lan 2000 sama doomu ndey ak wilaas sama kotsu maa ngi nuyu ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di nuyu sama papa Bara Dione. xam naa ne dañuy gàttal rek Zarko Baye Fall bi doomu Grand maa ngi lay siyaare. ñu ngi lay fay Baye Fall. lamba kon noo ñëwee. waaw ni ñu ñëwee gannaaw bi ñu sant yàlla julli ci yonent bi sant suñu ñaari waajur di sant l'ensemble zone 7B de Grand Yoff di euh, di kontaan aussi ci làmb ji ñu dellu si parce que umpale wu leen ni dem nañ bitim réew toog fa di noppalu ko loolu noonu yëpp nag eh, eh, musul tax làmb génn suñu xel parce que ñun lépp lu ñu doon làmb moo ko def si ñun kon mënuñu am lu gën làmb di wax nag bis bii nii moom ah sama gars yi gis ngeen bis bii ku ko tax barki Serigne Touba bu bàyyi seetaan làmb bi mi ngi nii Zarko le retour de Zarko bu jaratul sax ngay seetaan làmb lu combat bi wax rek nga ci am nee nan la bàyyi wax ji miin nga ko yow man xam nga ni kenn mësuma xamee wax man xaw ma loolu sax parce que man sama wax yëpp xeex la man kaay wax rek mooy kaay ñu xeex. mbay gu xam na lu koy xaar bu baax a baax. tegal foofu sa loxo kaay wax mooy kaay ñu xeex. kii aw ma leen lu may wax moom li ko jëlee France ah du coobareem dégg nga. lu ko fa jëlee. li ko jëlee France du coobareem xamal na Espagne ga mu ne woon la fa def ñu tëj ko génne ko indi ko looloo ko fi indi mais ñëw ci coobareem dégg nga man mbër muy farakante ci ay boîte. di parakante jaay buwaat di dem fure man mënoo maa daan da ngay solo sa bopp barke seexul xadim jarul nga yàq sa ñaar dërëm dama lay jàpp daan la man ay kilifaa topp sama ginnaaw di ma ñaanal ci kàttanu yàlla bu arbitre soufflé ma lay jàppee dama lay daan loolu kay kay mbasa may la ñu tuuti kay kay kay wuyu tontul ci lim la wax may la tuuti man du ma ko tontu de barki Serigne Bamba mbaam kii du kii du xeex du bëre kii jour làmb ji day ñëw daanu ñibbi. bu ma de bu xeexee ma duma ko bu bëree ma jàpp jàngal ko bëre daan ko. man ci keppaaru Modou Lo laa yaroo déggoo ma de ci keppaaru Modou Lo laa yaroo kii bu ñëwee dama koy jàngal bëre damay takk sama bët sax jàngal sunu grand sunu xarit Tafatine. tapet a tax mbër yu mag yëpp di ko daw mbër moom ngay wax ñàkk koo ñimee tax mu koy daw doo dërëm. am na li may wax rek li ki am na wax yoo xamante ni du waxu làmb du ma sax dugg sama vie privée kooku man la concerné man après làmb lu ma neex lu ma sentir laay def loolu détail la. di lijjanti li may wax rek mooy l' ensemble zone 7 rawatina. j'adore le sponsor bi nga xamante ni ñu ngi ko sol muy Aziz Ndiaye ñu lay xamal ni li ngay def kambale yëpp ñun waa Grand Yoff ñu ngi koy yëg te ñun waa Grand Yoff Aziz Ndiaye ah j'adore ñu ngi lay xaar ci combat bi nga ñëw jàpp ci bu baax a baax te nga tëddee ci euh, ndey ji seex. Euh, njaaxaanaay comme ni nga comme niñ ko xamee ci ni nga mës a def ci làmb boo mënti dugg ñu ngi la ci xaar bu baax a baax ah Ziz wasalaam. jërëjëf bul dem xaaral promoteur bi wax wooteel. lu muy wax yow looy wax ci Aziz Ndiaye. Eh, Aziz Ndiaye da laa xam. ndimbal ngay wut. kooku sama papa la sama xarit la. kooku lépp li muy def sama papa laay woo Abdou Aziz Aly Ndiaye jarul sax ma koy woo kooku def na li mu war a def lépp billet yëpp da koy jënd dem ci àll bi wutal ma sëriñ ma jàpp ko duma ko daan ko point promoteur bu mag bi nan nga def ba taxawal komba bi wërsëgu suñu borom rek mhm. wërsëgu yàlla rek yàlla moo dogal ñaari mbër yi nekk ñaari mbër yu neex a waxaaleel neex a jubool ba yàlla sabab bi date bi le 27 février incha allahu rabbi. mën nañ ci xaar ay bu neexee yàlla incha allahu rabbi donc euh, kuy dem euh, guerre doo wane say arme hmm. mais jàppale ne ni grand combat bi neexee noonu lañ fas yéene taxawal petit combat yëpp a neex. seen waaw def na ñëpp rek bëri jàppale jeunesse bi. liggéey bu ñu mënee tëgg sambar ci at bi suñu bamba maase. jeex na loolu la ñuy ñaan yàlla. jërëjëf Pape Sarr loo ciy sànni. non Jimbo wax na lépp. mënutuma si wax dara waaw kon mbokk yi ngeen jëf. grand maa baa ngi noonu Nguer ak Bour Sine Nguer moo ngi jóge Taïsinga Bour Sine moo ngi jóge Gris Baol arbitre bi sifflé na Nguer à gauche Bour Sine à droite Nguer bu zap Ngeer bu Zab Buur Siin Ngeer sul na ay Ngeer Buur Siin grand combat baa ngi noonu ñoo ngay lewaatoo ñoom ñaar eh Ngeer door na Ngeer jot na Ngeer a ngi xeex moom Nguer xeex na ak Bou Sine Nguer jàpp na ko joxe na tànk ba wet ga daanu waaw daanu na Nguer daanu na Bou Sine daan na ko Bou Sine daan na